mbokk yi nuyu naa leen monsieur le ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement mon prédécesseur demande qu'on dise qu'on parle ici de vérité qu'on parle de paix oui nous devons parler ici de vérité et de paix monsieur le ministre j'aimerais que vous vous m'aidiez à convaincre les députés de votre parti de votre coalition. Qu'est-ce faire avec 20 milliards de francs CFA, le ministre 20 milliards de francs CFA. Pouvez-vous nous aider à dire à mes collègues ce de francs CFA Si un kilomètre de piste coûte 25 millions de francs CFA, 20 milliards de francs CFA permet de faire 800 kilomètres de piste. savez depuis 10 mois, depuis septembre, les 20 milliards de budget de l'Assemblée nationale n'ont aucun contrôle. Je suis le premier vice-président de la commission contrôle et comptabilité de l'Assemblée nationale. Savez-vous que vos camarades, à commencer par celui qui est derrière moi, refusent le contrôle des 20 milliards de budget de l'Assemblée nationale qui peuvent permettre de faire 800 km de route, qui peuvent permettre de faire si un milliard permet de faire un kilomètre de route goudronnée, 20 kilomètres de route goudronnée, qui peuvent permettre de faire 13 centres de santé bien équipés, qui peuvent permettre de faire 250 magasins de stockage, 20 milliards de francs CFA, qui peuvent permettre, qui sont, qui sont l'équivalent du cinquième de la somme mobilisée pour la campagne agricole actuelle depuis mois de septembre. la commission ne se réunit pas. Vos camarades qui sont ici, qui insultent tout le monde, qui piaillent, refusent le contrôle de ce budget. J'imagine que certains, pas tous, pas tous, hein, il y a des députés qui sont intègres, qui ne prennent pas l'argent de l'Assemblée nationale. Mais peut-être que certainement ceux qui crient là sont ceux qui mangent, qui volent cet argent-là. milliards, kilomètres de pistes. Ils ont le ventre tellement gros qu'ils mangent kilomètres de